salam bishamsi di تركيب آلات وضبط قرارات بمقتضيات لا يفيهن إنسان فليس مع الألوان إلا هواية وكل معان للهوايات ألوان فليس مع الألوان إلا هواية وكل معان الوان وما لذة إلا عليها ترتبت مصائب هل ترد المصائب أعيان أيمكنك استفراغ ما في لذائذ إذا اختلف الأحوال أو سعيد الإخوان أتعتر بالأنصاب يوما ورجزها وقد أخر ميتا من عساه سليمان وكان نبيا مطمئنا بملكه ولم يغويه في حالة المن تغير seen soirée spéciale euh, spéciale soirée afro arabe dañu daal di faskene rek and batay ak euh, soxna Seyda Binta Thiam ak suñu consultant di Ibrahima Cissé ñu koy gërëm bu baaxa baax waaye euh, Seyda Binta légui légui rek dañ doon wax ci affaire musique spirituelle bi waaye man damay ñëw tamit ci côté promotion bi est-ce que musique bi ancré wu na carrément si si si si culture sénégalaise yi parce que tamit xam nga ñoom boo dee ne ñu ne naa dem soirée sangam naa dem soirée sangam est-ce que yéen sur ce côté là amu leen fi benn problème. loolu du ñàkk léegi Euh, waaye man dama jàpp ne. Hmm. médias yi ñoo defagul seen liggéey. xam nga lii ngeen organiser tey su baree rek nit ñi xam ko. dëgg la yi fi nekk dañ ko xamloo nit ñi rek nit du bëgg lu dul lu mu xam. dëgg la waaw nit itam du bañ. lu mu lu mu xamul lu mu xamul. Hmm. su ko defee su gënee bari rek nit ñi dinañ ko gën a bëgg. am na public bu rëy boo xam ne lii rek la ñuy dundee. dëgg la lii rek lañ bëgg. waa su ngeen ko faralee di def dina tax yëf yi gën a yaatu. ñun si sa disponibilité rek la def kon baax na. <laughs> <laughs> jërëjëf euh, Seyda Binta waaye nag xam nga Seyda bu fekkente nga wax concert wax orchestre en fait dafa laaj tamit euh, yenn yenn yenn yi bu fekkee ne ndax yéen di ngeen def ay tournée sur le plan national ak sur le plan international bu fekkee ne am na fan ngeen ci toll. waaw ren moom def nañu tournée yu bari ndax euh, am na bu ñu def Thiès. joge foofu ñëw refisque dem Louga dem Saint Louis dem Gambie. yooyu yëpp def nañ ko waaye su dee ci wàllu international génn gu ñëw ah, waaw donte ñu bari ñu ngi ñuy sollicité nag. mais jot ngeen ko am ay <laughs> fait euh, Binta man nag depuis ba nga ñëwee ba léegi dafa am benn question bu nga xamante ne vraiment su ma la ko laajul rek li tubaab naan ça va la gorge dinaa la ko laaj est-ce que du yow ne da nga am benn benn idole wala benn fans bu nga xamante ne moom nga doon imité ba agsi si lii parce que man soo woyee rek dafa am fu may yóbbu. waaw loolu moom du ci ñàkk te mooy kaw kabu Sharq Umu Kalsum. Oh <laughs> moom laay déglu moom laa bëgg mooy sama idole. jërëjëf merci beaucoup Seyda Binta xanaa rek ñu boy bàyyi ko mu delluwaat sur scène ñu daal di continuer waat waxtaan bi ma lay fàttali leen ne tey jii nag wax dëgg yàlla da am soirée spéciale bi nga xamante ne ku ci bëgg a gis sa bopp rek di nga si gis sa bopp ndax Seydina Ibrahima wax na ko léegi nee na xumb te dagan fépp la am te fii nag lay xewe فيه رضاني ولي هوى وها أنا أنا أنا من حب سكران يرضيه قيد حياته ويرضيه إخلاص ويرضيه رضوان يراقب أعمالا وراء بحدوده وينصحهم إن جاوزوا الحد شاء Sayda Binta Thiam li nga fay léegi am na solo mooy euh, xiibu bi ak tamit euh, axyaal bi ma bëgg xam ñi nga xamante ne ñu ngi koy seetaan te jànguñu arab nga expliquer leen un message boobu lan la. waaw uxibu jamalallah boobu itam euh, dafa doon woy boo xam ne maam Cheikh moo ko woy itam di wax ci nature bi. Mhm. ndax itam dañu ne nature bi dafa bokk ci kéemtaanu yàlla yi nga xam ne doomu aadama su ci xalaat war na laa mën a yóbbu ci yàlla. dëgg la su ko defee muy ne dama dama dema sopp boote bi nga xam ne moo ne ci àddina. Mm-hmm. ndax su dul woon boote boobu nga xam ne euh, moom la xalaat kat yi di di di di inspiré woo nee na su boob boobaa boroom xel nee na dootul tàqamteku ndax ñoom loolu la ñuy dundee. ndax bànneex bi mu koy jox bànneex bi mu koy jox. Mm-hmm. di la wax yi nga xam ne yu sensible la nga xam ne doomu aadama ci lay xool di ci gis yàlla ndax dañuy wax ne ki gëm yàlla lépp lu mu gis rek yàlla la koy won dëgg la su ko defee dem ci ba ci biir itam ma jël benn. ay poyam ci biir yoo xam ne benn nitu yàlla moo ko def. muy kan muy imaam Rafaa'i def ko ci yónnent bi. di ci wax ne dama daan yónnee sama ruux muy ñëw ci rawdu yónnent bi di ma fóonal yónnent bi di delsi mu ne ko waaye tey nag maag sama jëmm yépp ñëw naa ci sama rawd ci sa rawdu li ma ciy soxla moom mooy nga génneel ma sa ndeyjoor bu sell bi ma fóon ke te dellu loolu itam Euh, euh, euh, li ma ci gën a inspiré dama mus a dégg suñu responsable moral wax ko yi fi touché ñu waaw du ma ne mu touché ma waaye mu touché ñu beneen bi itam dellu ci wàllu beneen itam nitu yàlla moo ko def mhm. ci ñi nga xam ne itam ci nitu yàlla yi nga xam ne dañuy bind te du duñu def seeni tur mhm. te mooy hajaratul wara nee na yow yàlla déddu naa ñëpp ngir gis la déddu naa te yow rek yaa ma ñor samay doom sax def naa leen ay jirim ndax yow rek yaa ma ñor mu ne cofeel bi nga xam ne moo ma jàpp di ma inspiré ci yow ma di la jege soo soo soo ma ko xàññee rek nee na dootuma dund ci kaw àddina waaw loolu nag dafa doon ay woy yoo xam ne soo gisee ñi def ko ci mélodie bii ñu ñi ko tëgg mm-hmm. euh, di xaanuun gaanuun doon benn instrument spirituel boo xam ne benn nitu yàlla moo ko def su ko defee moo tax woy bi comme nitu yàlla ay nitu yàlla ñoo ko def ay tawasul ci seeni borom moo tax ñi defee ko ci beneen façon boo xam ne du am rythme sax pour nitu yàlla itam gis ci émission bi seen bopp <laughs> jërëjëf euh, Seyda Binta waaye dama lay daal di dégg toujours rek merci dama lay dégg toujours rek ngay jël exemple suñu suñu maam suñu suñu wasila suñu sëriñ de Cheikh euh, Cheikh Tidiane si Al Maktoum waaye ma bëgg a xam merci mo bëgg xam euh, Seyda Binta est ce que yow ay écrit wo ce Cheikh Tidiane si rek ngay jël wala da ngay tudd da ngay tibb ci kër dina yëpp mag mu baax rek mu am di euh, ki am poème am rek mu intéressé la nga gis sa bopp daal di récupérer bopp def ko sa répertoire wax nga dëgg man euh, duma xaar ku andi damay dem wëri am na solo waaw ndax xam naa ne soo amee kilifa boo xam ne jotaayam mm. kilifa bu ne dina ko fa tudd dëgg la dina tudd mbaaxu ku ne nga xam ne kooka li ko ñor mooy nit koo xam ne nag universaliste nga euh, waroo waroo waroo di woy ci benn côté rek moo tax euh, kër gu ne dañuy jël seen woy di ko woy ndax itam kenn ku ci nekk wax na ci yónnante bi loo xam ne soo ko yëree yem fa dangay wax ne fii la pour wax la mag ñi dañu jeex ci yónnante bi kenn ku ñëw da nga jeex ci yónnante bi damay faral di dégg sang bii di ko wax nee na ëtt bi mooy lislaam néeg mooy mooy turuq yi mm-hmm, mm-hmm. turuq yi nag su guddi jotee kenn ku ne am nga fooy fanaani waaye su bëccëg jotee ñun ñëpp ñu daje ci ëtt bi te mooy diine lislaam dëgg la Seyda Binta eh, li nga wax li ah, pour dëggal li nga wax am na benn mag bu baax bu ko doon wax nee na senegal ñun lu war a sant yàlla dafa bari ndax tey ji amaana xëy na sax sa waajur wala sa benn kilifa wax nga daal di ne déet waaye sa kilifa dina bu waxee nga ne naa dem daal di dem fekk ko ci loolu te tamit dafa mel ni que nee na këri këri diine yi dafa mel ni comme euh, weenu nag nga xam ne ku nekk da nga am fooy ratt boo ratt di taa xam te ko da ngay defe rek boobu mooy foofa. kon ñun li ñu war a sant yàlla bëri na waaye tamit euh, Seyda tam ma insisté waat encore si problème yi nga xamante ne Ibrahima dafay am ci genre genre musique bi mooy que ne message bi toujours c' est écrit en arabe est ce que Seyda du yoon te jaadu nga wax ko par exemple sur une langue aussi nga jëm ko essayer pour que message bi mën a jàll ci ñi nga xamante ne bëgg nañ ko déglu dëggantaan. waaw man li may conseillé ci ñi koy déglu nañuy faral di jege animateurs yi. ndax ñoom lépp lu ñu woy rek saa yi ñu koy teg ñu ngi koy firil nit ñi. Mm-hmm. ndax man damay wax ne mag ñi ñoo ñu gën a dégg wolof xam nga man séeréer la <laughs> ni may waxee sax xam ne séeréer bu déggul wolof la tey mag ñi ñoo ñu gën a dégg wolof téeméeri yoon waaye lan moo tax ñi bind ci parce que xam nañ ne mooy langu sayyiduna Muhammad dëgg la te kenn ko ci nekk dama musa dégg benn mag mu ne dafa am ku ñëw ci moom ne damay jàngi arab ndax lan nee na mooy langu yonent bi bés bu ma ko jàngiwul ba dajeek moom lan laa koy wax mënuma arab. day na waar de. kon farata kenn ku ci ne nga jàng langa arab ndax mooy lang bi nga xam ne yalla waajal na ko ay junney at balaa mu koy wàccee. Mhm. mu doon lang boo xam ne tey ci ci ci alquran moom lañ ko bindee kon tey suñ doon seet ñun jullit mooy suñu lang. waaw dañ ko war a jàng xam ko bés bu ñu demee bi amuñu possibilité man koo jàng itam nañu jege boroom xam-xam yi ñu di ñu ko firil ndax itam yitte boobu lañ ci bëgg. barke démb rek dama toog benn xale boo xam ne dafa ñëw fii vacance jóge France. Hmm. ñëw di ma woyal tala albadru ci façon boo xam ne keroog sama rongoñ di fa tuur su koy woy sax nga xam nga foog ne tubaab mooy woy. Hmm. waaye def neex na tellement waaye yitte ba mu def. léegi léeg nga gis ay xale yu ndaw woy la itali di la woyal xasida yi am ñoo xam ne seen yitte àgg na sax dañ lay ñëw di la ko firil ci façon boo xam ne yow mi koy woy amoo dégg boobu yàlla xam na ko jërëjëf euh, Seyda Binta waaye ñun nag xam nañ ne dañoo nekk fi Sénégal waaye xam nañ ne aussi sa musique baa ngi circulé mu ngi dem fu sore sore sori ndax gis naa aussi nga def benn featuring ak euh, ki nga xamante ne mooy imaamu Chicago bi boobu nan la demee noonu waaw dañ ko fi invité woon benn benn festival suuf yi marocain ñoom ñoo ko organisé woon mu ñëwoon fa mhm. comme ñun dañ ñu ci invité woon pour seetaani rek mhm. am ku ma ko présenté ni ko kii woykatu arab la xam nga rek artiste dëgg la mu jëkk rek dal di mawal ci yonante bi ma dal di ko feelu ci yonante bi keroog dafa joy ndeysaan dama mujj ña ñëwoon ci festival yëpp ñu wóor ñu di ñu jël suñu contact mu ne yow nag balaa may dellu Amérique il faut que ñu def dara. dëgg dëgg ko defee nag ñi invité. léegi boobu kan kan ngeen ci rendre hommage. Bushraatu Amina boobu. Bushraaki Amina muy yaay Amina rek. waa léegi doo ñu tumee tuuti rek ànd ak la. dina ma neex de. Bushraaki Amina Bushraaki. Bushraaki ummul xayri Bushraaki. waaw màggal leen ko nag tàccu leen kay. بشراك أم الخير بشراك فاسأل أجبك بأن نور المصطفى طهرت به الأرواح والأجسام فحضارة ما بعدها من مذهب وهداية في نفسها خوف وأمانة أبدى بها الإسلام بشراكي بشراكي فريمون فريمون فريمون فانتاستيك c'est vraiment merveilleux vraiment on trouve même pas les mots li nga xamantene mën nga ko wax pour nga exprimer li ngay daal di nga xamantene la voix seule rek day dem motax may len dafa am style am voix am am sa musique vraiment c'est une femme extraordinaire ma len di ñaan ngeen tacc ko bu baax a baax a baax a baax léegi nag euh, Seyda danaa leen lu guddi gi di gën a sori rek yëf yi di gën a neex ndax dëgg yàlla xum bu ne te dagan na Ibrahima. Mhm. waaye nag euh, Seyda Binta daf ñu daal di interpellé ñun ñi nga xamante ne ñooy animateurs yi. nee ñun ñoo deful la ñu war a def. Mhm. xam naa matale amul. waaye tey ñu ngi ci jéego yi. maanaam ñu ngi jéem rek li ñu man mhm. ngir waxal nit ñi. laqatu ci ginnaaw mag ñi ne kenn ñimewul ni damay tekki. Mhm. parce que li olof yi di wax ni mbaam boo ko tënkul mënoo ko tenki. dëgg loolu olof yu xoot la. Mhm. mooy wayu mag ñi ñoom rek ñoo ko man a firi. waaye nag sañu nañu am suñu yéene ak suñu dégg-dégg. que mag ñi day eh, message bii lañu ñu yanu indi ko ci njaboot gi te. Umu Kalsum def ci wax lu am solo xam naa moom nee na moom fan sam la waaye dañ koy séddoo te duma ma nangu mu ëppale ma ci. <laughs> am nga ci droit. waaw man tamit ci côté boobu lay liggéeyee ci laay inspiré wu. Ah. ay woyam ay texam yëpp dafa man neex. Mm. ma ngi ciy gëstu te amaguma ci li ma ci bëgg yëpp. Umu Kalsum dafa wax ni. al musiqa lugatun la yaxtaaj ila mutarjim Umu Kalsum dafa wax ni musique musique mm-hmm. langue la bu jërul traduire. dëgg xam nga yaa ngi wax sànq ni dañ ko war a wax ci wolof. wante bu neexee rek dugg la. dëgg la sànq bi mu woy Bushra ki Amina xamoo lu muy wax wante xam nga ni neex na kon musique langue la bu jëral traduire bu ñu ko waxee tey dinañu mën a nangu que ni ni ñu dégloo musique américaine. Mm. muy ñëw fii xale yi di ko toppandoo. Mm-hmm. di jël rap yi. dëgg dëgg di ko woy. Ah. ah mu mel ni fii la juddoo tey su ñu defee effort boobu musique arabe dina am. àgg fi nga xamante ni foofu la war a àgg. léegi kon euh, yaakaar naa ne kon euh, euh, la balle est dans le camp des animateurs parce que en fait ñoom ñoo war a. comme dañuy promouvoir musique lëmbalax di ko promouvoir euh, hip hop bi di ko euh, promouvoir yeneen ak yeneen genre musicaux yi laaj na tamit ñu dugal seen loxo bu baax a baax ci wàllu wala boog arabisant bu nekk jóg nekk animateur ne carrément sama tranche musicale yi laa koy def. day diis bu ko yenee animateurs yi rek parce que animateurs yi dañ leen di dañ leen jox espace dañ leen di may chance. dëgg la waaye télévision yi ak média yi sax. Mhm. ñoom ñoo war ubbi. ay espace yoo nga xamante ni danañu mën a véhiculer musique arabe comme ni ñu mayee sens rab ñëw euh, euh, euh, naka la tudd malax mi ñëw acoustique bi ñëw dëgg lépp ñëw ñu mhm. may leen espace ñu jox leen émission yi ñuy def te ba léegi télévision yi gisagoo ci benn émission musique arabe mais est-ce que yéen def ngeen ay jéego ci anam boobu def ngeen ay jéego pour aller vers ces chaînes de télévision wan leen ne leen lii mooy seen bëgg-bëgg parce que tamit quoi qu'on dise bu weeru koor jotee da ngay xool ne arabisant yi dama naan seen traite la parce que dañ leen jox wàllu rëy ci woowu mais en dehors du ramadan parce que weeru koor benn weer la ci at bi mais en dehors du ramadan weer àdduna bi day continuer dund gi day continuer est-ce que laajul yéen arabisant yi ngeen dem vers ces chaînes de télévision def seen seen seen projet d'émission ne ñun kat suñu soirée déclaré lii la parce que nii nit ki amee sañ-sañ ne man kat eh, taasu laa laa bëgg kii ne man kat mbalax bu xumb trop laa bëgg kii ne leneen ak leneen ak leneen am ay animateur am teg eh, eh, projet d' émission ñu validé ko ñu koy teg sur les chaînes de télévision tey jii espace bi xam nga ne am na kër yu bëri nga xam ne tey jii ital ne leen te wax dëgg yàlla dinañ toog diñ ko seetaan di ñaax seen waa kër pour ñu dem ci loola. dëgg la wante anima euh, ñi ñore seen kër yaakaar naa ni ñoom ñooy dugg seen dépence jox ñëw jox ki war a togg ni ko toggal ma. maa xam loolu. léegi nag ñoom su fekkente ne nii gis nañ ni loolu war na ci am te seen public soxla nañu ko. dañu war a créer espace boobu xanaa bu ñu toogee fii danañ ko sañ a parce que fii mooy seen public bi nga xamante ni nii ñëpp ci la ñu bokk. dëgg la yàlla baax na nañu dundee yaakaar rek. jërëjëf sëñ Ibrahima Cissé ma leen di fàttali nag tey mooy suñu consultant su suñu spécial soirée afro arabe ñu àndandoo si ak Seyda Binta Thiam gis ngeen li am solo li nga xamante ne indil nañu ko fi man dama naan toujours rek respect et admiration pour cette grande dame pour cette très belle voix cristalline et mélodieuse ma leen di ñaanaat encore une fois ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax. de Adja bi nga indi ban bi nga indi nii nag moom wax dëgg yàlla laaj na na nga tojal ñu yax bi ñu xool ba xam. bii mooy daa albilaat sama sëriñ moo ko way sëriñ dee suñu sëriñ <laughs> Mouhamadinil Moustapha <laughs> <laughs> moo ko suñu maam suñu maam maam si Ahmada Tijani moo ko ko woy ndeysaan eh, ba mu absenté fukki at kenn gisu ko mu xëy rek ñëw ñëpp kontaan muy wax ambiance su keroog bi soppe yi mhm. kenn ku ci nekk di akolaat sa morom ndax cofeel nee na keroog waxuma sax nit ñi waaye jaww ji sax yëg na ne sang bi ñëw na <laughs> waaw euh, Seyda Binta waay waay am na solo lool waaye tamit dañuy wax toujours rek si sa wàllu carrière parce que tamit lu ñu itteel la ñu seetlu ne ay euh, festival yu bari day am au niveau des pays arabes pays arabes yu bëri dañuy def ay festival mais ñun mosuñu leen ci dégg mbaa léeg-léeg da nga bëgg toog soru ko rek di def li ngay def rek toog jàpp sa ñaam wala nu mu demee noonu. demeewul noonu <laughs> ah, kuy liggéey bëgg nga génn. bëgg la xëy na mooy moo jotagul rek pour ñu war a génn. Mhm. te itam euh, aar bi ñuy def dafa laaj. Euh, ñëpp jàpp ci. Mhm. pour mu àgg fi mu war a àgg. ndax man dama jàpp ne du loo xam ne dafa war a yem Sénégal. àdduna yëpp ci war a jot. waaye yemale woo ñu Sénégal sax ban fi yem. ah yemale woo ñu Sénégal de. déedéet. <laughs> <laughs> waaw Seyda Binta ma xool ne ah, en fait euh, sa orchestre bi dama gis ne musique euh, instrument yëpp. du ay instrument yi nga xamante ne ñun suñu suñu instrument bopp la. Mhm. ma bëgg xam ndax est-ce que ñun bu ñu jëlee suñu instrument ñun. bëgg am mélodie yi est-ce que dinañu ko génneel. waaw am na yu ko ci mën a génne waaye du yëpp. Mhm. ndax maa ngi fàttaliku am na suñu benn kaset boo xam ne Kora bokkoon na ci. waaye soo ko déggee da ngay foog ne instrument gaanuun bi mooy joué. Mhm. pour wax la ni euh, instrument boobu